jërë ngeen jëf euh, baal naa leen ñu tàmbali xibaar yi Ibou ak euh, conférence de presse euh, bu suñu gaynde Aliou Cissé janoon na ak taskatu xibaar yi. démb la woon moom ak Idrissa Gana Gueye jàkkaarloog taskatu xibaar yi teew foofe ca Yamoussoukro ñëwaat na nag si seen ndaje bi ak Cameroun. mu ne match bu am solo la bu leen soxal la également dinañ def seen kamtalaay kattan ngir mën a qualifier ndax loolee dina leen may de ñu mën a dóor bu ñu dóoree rek dinañ qualifier deuxième euh, tour Mamadou Ndiaye Mame Fatou Ndoye ak Mbissane Ndoye ñoo ñu fa teewala Sénégal Cameroun Aliou Cissé xam li koy xaar bu baax nee na li gën a am solo équipe bi ñuy jajeel di Cameroun nekk na équipe boo xam ne ay compétiteur lañu waaye Sénégal nag moom tasul ginnaaw ndaxte fi mu ne nii am nañu expérience. concerné je crois que man sama liggéey ak ñun suñu lu am lu ñu am solo lu am solo si ñun mooy que justement depuis des années et des années am nañu ay certitudes yoo xam ne am nañ ko nañu jëfandiku ci loolu euh, jëm a liggéey vraiment ñun loo xam ne loolu moo ñuy loolu moo ñuy indil match bi que di wax tout temps ci ci adversaire adversaire bi jarul ñu koy présenté Cameroun ñëpp xam nañ ko.

waaw ñun nag euh, pare nañu daanaka suñu lépp pare nañu def nañu tàggatu gi war ngir rek mën a jàkkaarloog ñii di waa Cameroun li ñu gën a soxal mooy défendre suñu couleur mais surtout aussi euh, am taxawaay bu am solo li nga xamante ne mooy suñu objectif muy am ndam euh, dinañ ko dinañ ko def ndax Aliou Cissé dina indi ak coppite ci classement suba gi sélectionneur bi xamle ni li gën a am solo mooy groupe bi te fi mu ne nii nag moom am na ko on a on a un groupe assez que. waaw man nag dama dama defar sama groupe bu yaatu boo xamante ni. Eh, ñëpp war nga woo naa daanaka ñetti 27 joueurs yoo xamante ni ku ci nekk mën na remplacer sa morom. li gën am solo daal mooy am groupe boo xamante ni dinañ àndandoo. Euh, mën a xeexandoo euh, gañeendoo. je dis c'est 11 joueurs qui seront sur sur le terrain et que d'autres rentreront c'est l'état d'esprit de nekk affiche bi nga xam ni daanaka moom la ñuy xaar ci ñaareelu bëccëg bi Aliou Cissé xam na ni ñetti poñ yi. moo gën a am solo ngir rek daal di qualifié ci ñaareelu bëccëg bi. aywa ñu wax euh, diggante euh, ñu des ci match boobu ba léegi senegal Cameroun mu mel ni am na ñu ñu jàpp ci sunu gaynde ne du nu bokk ci jongante bi ndax ay euh, maanaam danoo forfait. dañu forfait li ko waral ñu si bëri dañu amee gaañu gaañu bokk na ci Youssouf Sabali Moussa Niakhaté bi nga xamante ne keroog suñu diggante ak waa Gambie da ciy génnoon Abdallah Sima tamit ci ñooñu. Euh, dañu blessé euh, Youssouf Sabaly nag démb moom ak Moussa Niakhaté entraîné nañ waaye dañu gis ki nga xamante ne mooy euh, musa ñaxate muy soox ni ngeen ko gisee ci image yi loolu rek tax na sax Aliou si ne boo moyul duñu mën a bokk ci bile match soxna Faty leneen lu ñuy waxtaanee aju rek ci li nga xamante ne mooy fan zone yi ay promoteur nag yoo xamante ne ñoo ko doon amal seen diggante ak RTS mel na ni jamono ji neexul. moo waraloon kenn ci ñoom Ali Mané amaloon ci démb sax ab ndaje seen diggante ak taskatu xibaar yi ngir ñëwaat ci euh, mbir moomee dañu tawlu ay kàddoom ci micro di sa prera kaaf dane moom jaayuñu jaayuñu droit exclusif à person et bi mu ngi nii dinaa leen ko jox yéen journalistes yi droit yi ñuy jaay ay droit non exclusif la moo tax kenn amul droit ne lii maa ko moom RTS dane moom moom moom exclusif pour organiser li ñuy wax fan zone prise privée ne moo yore droit exclusif sur le service public le service public mënuñ ko partager mënuñ ko jaay dans un environnement concurrentiel mënul nekk soxna Fass yi dañuy desandeek euh, CAN 2023 euh, boobu sax ak euh, match yi nga xamante ni rek jotoon na am démb Guinée équatoriale moo làppi nag waa Guinée Bissau ñeenti bal ci ñaar Côte d'Ivoire dafa ñàkk rencontre am digganteem ak euh, nigeria benn bal ci dara ci poule bi nag Égypte ak gana dañu def match nul ku ci nekk dugal ñaari but tey nag euh, bu ñaari waxtu jotee Cap Vert dina laale ak waa Mozambique dinañ ci toftal Sénégal euh, Cameroun di h lay doon 20 nag Guinée Conakry wala République de Guinée moom dina euh, football ak <clears throat> waa Gambie muy beneen derby su régional soxna Faty. aywa ñu wax itam ci leneen muy wàllum politique ak Cheikh Tidiane Dièye. Euh, mi euh, wax ci recours maanaam clamé gi ko amadu Ba clamé ca conseil constitutionnel mu ne wax la joo xam ne moom candidat wu coalition Benno Bokk Yaakaar dëgg ko fenn maanaam ay tuumay tuumay kese la. waaw mu mel ni daal soxna Fatick ku fulaalul kaddu yi nga xamante ne rek euh, candidat bu Benno Bokk Yaakaar di Amadou Ba yëkkati fan yi ñu génne ba mu jaraloon sax mu ci déposé. ab recours moom Cheikh Tidiane Dièye nag demb mu ngi doon taseeg journaliste yi ngir àddu ci li ni Aminata Mbaare Sow ak euh, Modou Diop ñoo ñu fa toogalaan. ñi ma investir waruñu maa investir wala parti wala coalition bi ma investir waruma investir waaw moom est-ce que xam na ku ma investir visiblement Amadou Ba xamul kan moo ma investir il n'a pas cherché dafa tombe dans la facilité et le manque de rigueur parce que man je suis un indépendant indépendant indépendant rek moo la mën a investir. te ma leen di ñaan ñu bàyyi caaxaan yi ñu nekk parce que lii ñu yëkkati yóbbu ko conseil constitutionnel c'est presque sans objet ça nous retarde ça perturbe jaxase na réew mi presque trouble à l'ordre public la def ci dëkk bi depuis 48 heures te mënoon na ko mënoon na mënoon naa ñàkk aywa Ibou ñu desandi ba tey ak élection présidentielle boobu 2024 Barthélémy Dias moom dañ ko tabb. Mhm. directeur campagne bu candidat bi di Khalifa Sall. Khalifa Sall mi nga xamante ne fan ñu ñu génn rek moom Barthélémy Dias moo ko tàbboon sax maire honoraire bu ville bu Dakar kooku nag. mu ëlbatiku rek euh, tàbb ki nga xamante ne mooy euh, Barthélémy Dias doon ki nga xamante ne moo nara doon directeur de campagne am taxawu Sénégal nag ci njiitalam ki nga xamante ne rek euh, mooy Khalifa Ababacar Sall tànn rek ki nga xamante ni mooy Barthélémy Dias ñu gis ne da ko wekk ci xëy na wékk bi nga xamante ne jot na ko am moom euh, Khalifa euh, Barthélemy Dias nag ci fàttali jamono ji moom mooy euh, njiital wala sax président association bi ëmb maire wala sax grande ville métropole bi nga xamante ne ñoo nekk ci àdduna bi soxna yi ñu jeexale ko mbiru Colline Faye doomu France bi nga xamante ne rek dañ ko tegoon loxo fii ci Sénégal gannaaw rek bu mu bokkee ci ab manifester fukki fan ak juróom-ñaar la woon ci weeru novembre ba ñu génne gannaaw rek bu ñu amaloon fi ab manifestation mu aju woon ci mbiru Ousmane Sonko tegoon nañ ko ci loxo nag nee nañ euh, bàyyee nañ ko waaye dañ koy dàq rek mu dellu dëkkam fi nga xamante ne mooy France. ki xam la li ni mel nag di Cheikh Khoureychi Ba bokk ci ñi ko doon layool kinésithérapeute pët boobu nag am. ci ñaari ñaar fukki at ak ñu ngi ko doon toppee mbir euh, li nga xamante ne rek rassemblement participation ci benn rassemblement boo xamante ne. daanaka am loon autorisation mu ñu jàppoon ne mbiru euh, sécurité publique ak complot contre euh, état bu Sénégal de ci lalu woon moo waraloon rek kilifa yi jëloon dogal teg ko loxo laata rek ñuy jël dogal bi yees euh, soxna Fati. jërëjëf Ibou Diouf xibaar yi buur na ma fàttali ne Souleymane àjjuma bu jot dina def jàngat bi moom nag jàngat bi dafa. nga ko def ci wàllu koom ni mu koy defee saa su nekk tey nag mu wax ci euh, viabilité wu système de retraite au Sénégal euh, ci kanam daañ ci gën a yaatal ma fàttali leen également ne ibu def na ab jàngat taxaw seetlu ci littérature 2023 bi mu gé bi ñu génn fi ci Sénégal euh, moom it daanu ko yaatal naka noonu Iliman Ndaw moo naka nekk sunu gan taskato xibaar la waaye daañu waxtaan ci tàggat yaram rawatina Coupe d'Afrique des Nations bile Chérif Dia Euh, noppi na ci yenn kaay yi ak la ñu xëyee dañ koy fekk fa mu nekk mu ko defee mu faram fàcce ko incha allah. aywa Chérif Coupe d'Afrique